des nag waa daayira bi daayira bi tabarkalle ñoom ñëpp may seen maam nag loolu la yàlla dogal nag man man mii daal may seen maam waaw su ko ngeen di ma ñaanal ma di leen ñaanal Abdoulaye ndeysaan su ko defee nag ah noo bokk patron noo bokk patron sëñ Babacar si mooy sunu patron ñun ñëpp ah benn bàyyi ngeen muy Pape tax itam tabarkalla tabarkalla yàlla dogal loolu benn patron ngeen am muy Serigne Moustapha loolu itam yàlla ko dogal li ci des nag nu jàppale leen rek yéen ngeen jàpp ci ndax ñi nga xam ne ñoo adhéré ci daayira bi kenn ku ne am na wëllëre bu nga xam ne daayira bi lay nooyee ngir jëmmam ba tax na kon nag yal yàlla barkeel yal na yàlla barkeel yal na yàlla barkeel te bu nu wóorul woon ni bu nu teg na ci loxoom kon du nu fi ñëw waaw waaye nim nu wóore ni teg na ci loxoom dafa ëpp tabarkal la tabarkal la loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk